ñu ngi leen di nuyu mbokk internet yi nga xamante ni ñoo baaxoo saa su ne dina topp ci Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax xam ngeen tey fii nu nekk nii mooy Léopold Sédar Senghor di aéroport bi nga xamante ni mooy aéroport bu njëkk ci Ndakaaru tey nag ñu ñëw fii di teeru benn gan gu mag boo xamante ni kenn dootu ko présenté ci lislaam kenn doonu ko dootu ko présenté ci adduna muy Serigne yi ñas bi nga xamante ni muy xalifu général des Niassènes tey moom lañuy ñuy euh, xaarandi fii mu war a ñëw léegi léegi ay waxtu rek moo ko dese xam naa vol bi atterrir loolu moo tax euh, mbokk taalibe yi ak ay taalibeem ñoom ñëpp jóge nañu fu ne ci réew yi fii ci biir Ndakaaru ak ci ci ci ci génn Ndakaaru muy Kaolack ak fépp ñëw fii di ko xaar ñoom jigéen ak góor mag ndaw ñoom ñëpp ñu ngi fi di xaar sëriñ Mahi ñas gannaaw tukki nemmeeku gi nga xamante ne amoon na ko fële ca Soudan ak démb mi nga woon ñaani li waraloon tukki bi nag mooy tukki nemmeeku ak tukki jàmm ak tukki waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo ŋànk réew bëggoon jàmm bëgg jàmm dellu si ci àdduna waaye jàmm dellu si ci réew yëpp loolu moo taxoon mu jóg loolu nag moo tax ay taalibeem tey di ko xaaral xaarani ngir ñëw màggal bis bi nga xamante ni moom la war wàccaat fii gannaaw bi mu demee ci tukkeem googu loolu moo tax tey nu ñëwal leen fii Sénégal set fa seen leen digtal lépp loo xamante ni xew na ci ñëwu sëriñ bi incha allah ñu ngi leen di jox rendez-vous léegi léegi laata sëñ bi di wàcc ci vol bi nu ànd ak yéen ci Sénégal set. mbokk yi mi ngi noonu comme niñ leen ko waxee woon léegi nii ci senegal set ah ñi ngi nii tey ci aéroport Léopold Sédar Senghor defe naa gis ngeen mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk nii di teeru Serigne Mahi ñas mi ngi nii soog yi ñëw ah mi ngi nii gis ngeen cortège bi ah ñi ngi ko topp mbokk ñaseen yi amul kenn ci ñoom koo xamante ni fi mu toll nii yaa ngi téye sa bopp ñoom ñëpp ñi ngi kontaan waaye ñi ngi ci ñëw bi nga xamante ni moom la sëriñ bi ñëwoon ci ci ci e, demoon ci tukkeem bi ah, ah muy tukki bu am solo boo xamante ni nee naa leen def na darfu ah dem ñaani e, li ko taxoon jug mooy e, li nga xamante ni mooy mooy mooy jàmm waaye li ko taxoon jug mooy fekk ñi nga xamante ni dañu jóyaloo woon mu fexe leen boole nu doon benn ah loolu moo ko taxoon jug waaw mi ngi noonu mi ngi noonu nuyu seen defe naa oto yaa ngi noonu mi ngi noonu gis nga mbokk ñeseen ni foo sànni mbàtt mu tax gaa yëpp jug nañu muy lu am solo lii mooy wane ni Sénégal benn la lii mooy wane ni Sénégal am na ay mag yu baax yoo xamante ni lépp lu ñu dégg loo xamante ni dafa concerné àdduna waaye dafa concerné Afrique ñu jug taxaw ah, moom nag loolu moo tax mu jug taxaw ci jëf ji nga xamante ni gis ngeen mbooloo mi yooxu yi ñoom ñëpp ñu ngi noonu di ko xaarandi muy lu am solo gis ngeen ndeysaan saan seen i analtuñ seen bopp am na ñoo xam ñu ngi ciy daanu ay jël ah ñu ngi yooxu si kar yi ah ñoom ñëpp boo leen déggee lay laa illa laa bàyyi ngay dégg muy lu am solo loo xamante ni mi ngi noonu waaw gisoo mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu bis bi romb na bis bi defe naa gan yi mu àndaloon ñoo nekk ci bis bi waaw mu des otoom defe naa otoom mooy ñëw noonu da ngeen gis ngeen cortège bi muy lu am solo loo xamante lii war na jàngalaat ku ne ni Sénégal Sénégal warulu të ndax am na nu mag ñoo xamante ni ñu ngi fi day mag yu baax yoo xamante ne adduna wërngal képp ñoo leen xam bu nu génnee ñëpp joxaat leen seen wàccuwaay waaye bu nu génnee ñëpp bëgg leen Serigne Mahi Niass ci la bokk mi ngi noonu sànn ñaseen hmm, yi ñoom ñëpp kontaan nañu ñu ngi nii ñoom ñëpp jullit yi ñoom ñëpp génn nañu teeru ko li wër Yoff ak li nga xamante ni moo wër Almadi ñoom ñëpp génn nañu tey fii foo sànni mbattu mu takk ñoom ñëpp li ko waral mooy danu génn di xaar sëriñ Mahi Niass mu ñëw nu tatagal ko waaye joxaat ko wàcc waayam waa mi ngi noonu mbokk yi gis ngeen dafa mel oto bu noir bii ma seen fila la Serigne Mahi Niass uh, yéeg oto baa ngi nii ah mi ngi ne nuy seen mi ngi ñëw mi ngi coon wi da ngeen allahu laa ilaha illallah baay baraam baay baraam yes yes yes yes yes ndeysaan mi ngi noonu ñoom tey dañu teqali seen sago di xaar seen sëriñ pas-pas dafa solo gis ngeen que ci ah, ci tukku nemmeeku bu am solo bi nga xamante ni moom la defi woon waaw ah, muy lu am solo gis ngeen gis oto bu noir boobu ah, gis ngeen oto bu noir boobu ñoom ñëpp ci teeru bi gis ngeen L200 bi journaliste yëpp génn nañu tey mi ngi noonu gis ngeen mbooloo mi ñoom ñëpp ñi ngi nii journaliste yi ñi nga xamante ni ñoo demoon ci biir aéroport bi teeru woon Serigne Maye ñes mi ngi nii ci oto bi ñuy seen mi ngi ñëw xoola ñaseen ni foo dem yaa ngi gis allah allah allah allah rek ngay dégg allah allah rek ngay dégg muy lu doy waar loo xamante ni daw na yaram daw na yaram lii mooy wane ni kilifa kilifa diine am na Sénégal ah kilifa yaa ngi Sénégal tukki nemmeeku bi nga xamante ni demoon na ko ci réew Afrique yëpp demoon jéem jubale képp koo xamante ni da nekkoon ci réew mi jubadi kook sa morom mu boolewaat leen waaye demoon boolewaat lislaam bi muy sëriñ Serigne Mahi Niass moom la defi woon mi ngi nii ci oto bi mi ngi nii ci oto bi mi ngi nii ci oto bi mi ngi nii ci oto bi mi ngi nii ci oto bi waaw mi ngi noonu wàcc na Serigne Mahi Niass wàcc na Serigne Mahi Niass wàcc na mbooloo mi kenn àndut ak sa sago dafa wàcc waaye est-ce que wóor na est-ce que wóor na mbooloo mi ñu ngi bëgg dal ci kawam Serigne Mahi Niass wàcc na waaye takkandeer yi buñ ci jugulee buñ ci jugulee buñ ci jugulee du baax gis ngeen way Serigne Mahi Niass mi ngi ni dox ak tànkam Serigne Mahi ñes mi ngi dox ak tànkam Serigne Mahi Niass wàcc na Serigne Mahi Niass wàcc na Serigne Mahi Niass wàcc na Serigne Mahi Niass wàcc na mi ngi nii di dox ak tànkam wóoratul wóoratul wóoratul Serigne Mahi Niass est-ce que warul yéeg ci kaw oto bi mbooloo mi ñi ngi topp ko waaye takkandeer yi mënul leen dara ah sëriñ Maay Ñas mi ngi nii may seen ah est-ce que wóor na est-ce que wóor na ndeysaan ndeysaan tey aéroport la fi xew daw na yaram ndeysaan ñaseen yi ñu ngi wane seen cofeel ci sëriñ Maay Ñas ndeysaan ndeysaan daf ko mérité daf ko mérité ndeysaan tànkam lay doxe mi ngi noonu sëriñ Maay Ñas tànkam la fa seen a waaye est-ce na nag est-ce na Serigne Maye Niass wàcc na oto bi bi mu yéegoon mi ngi nii di dox ak tànkam Serigne Maye Niass mi ngi dox ak tànkam mi ngi ànd ak waaye takkadeer yi gendarmerie ñi ngi ko escorté waaye mu mënuñu mbooloo mi dara ndax mbooloo mi dañu bari dañu bari dañu bari Serigne Maye Niass mi ngi noonu di dox mi ngi noonu di dox ak tànkam lii est-ce que wër na c'est pas sûr mbooloo mi dañu bari xam naa nag boo moytuwul dina yéegaat ci oto bi. ndax lii est-ce que dina continuer ndeysaan lu daw yaram la tey li xew aéroport Léopold sangoor doy na waar Serigne maa i ñes tertu bu yéeme mi ngi noonu mbooloo mi topp mi ngi noonu ànd ak moom topp ko mi ngi noonu defe naa day yéegaat ci oto bi ndax lii mënul dem mënul dem mënul dem mënul dem mënul dem xalif général des Niassènes sëriñ maa i ñes mi ngi noonu mi ngi dox mi ngi dox mais góomu mu sotti ndax mbooloo mi dañu bari góomu mu sotti ndax mbooloo mi dañu bari Serigne Maye Niass mi ngi noonu mbokk yi gis ngeen li nga xamante ni moo xew Léopold Senghor muy Serigne Maye Niass ah bi mu jógee ci tukkeem bu rëy bi mu defi woon bi mu dellusee mbooloo mi ñu ngi nii ñesee nii di ko xaar di ko teeru ah mu ñëw ba ci buntu aéroport mu wàcc 4x4 bu noir bu mu yéegoon fa seen dox ànd ak mbooloo mi ah fa seen dox ànd ak mbooloo mi waaye defe naa lii est-ce que dina sotti ndax mbooloo mi danu bari te sëriñ mi dafa sonn xam naa day mujj yéegaat ci oto bi rek waaw xam naa day mujj yéegaat ci oto bi ndeysaan mu ngi nemmeekonte ak soppe yi ah. Legend!